kii dit que ni dañu attaqué siège am man xam naa Barth kii di Barth kii di Aly Mané waa parti socialiste dama leen xam ba jeexal leen tàkk ñooñu ñoo indi la salle politique ci parti socialiste ñoom ñoo ko fa indi ay recrutement de nervi ay dem attaque ji ay toog ba def ni ba gis ni instant bi nii pour pour saltel suma adversaire damay sax jël suma yëf ma taal ko après ma jiiñ leen ko ils sont capables de ça Barth est capable de saccager son propre le siège de euh, Taxawu mmh. pour après dire que non parce que woy oui, c'est Abbas Fall qui a ni ñu koy waxee moom moo moom moo euh, euh, il a prêté le flanc quand il dit que dinañ fayu ah. mais loolu mënul gaawee noonu il faut nit ñi tamit nit ñi ay xel lañ yoo di calculer mi ngi noonu kooku mooy kilifa ñu ngi koy jaajëfal baax a baax léegi alaaji moo da ma indi laat photo bi rek après bu ko defee jërul teg vidéo ba léegi ma expliqué tuuti après jox Assane vidéo bi nga may indi rek après nga dindil numéro yooyu di euh, daal di daw ci suuf Assane hmm. euh, vidéo bi nga xam ni moom lañ teg léegi ci kilifa di ci wax image yi nga gis ci côté bi alaaji Modou su fekkee ni rek jege la euh, élément bi nga teg léegi nii jërul ñuy teg image bële Mouhamed Diouf bu ko defee kii seetaan moom dina mën a xam wala jàppandiwul Modou non non waxuma vidéo ba léegi ba léegi ñu koy dugal dafa bari waa dafa bari ñu ko dugal quoi wóorul mooy bi nga teg léegi nii rek bu kilifa bi waaw bi nga teg léegi nii rek jërul ñuy dugal bële parce que bële ma nga fële fu ne ci réseaux sociaux yi ci YouTube ba xam naa ni euh, voilà léegi dindi ma numéro yi Assane gis nga fii ñu def ligne rouge bi. Hmm. waa ji moo ànd ak ñoom ci mbooloo mi. Hmm. bi ñu ñëwee ba mu def va vin ba booy taal daf leen joxoñ dem duggaat ci ñax maanaam moom sànniwul euh, joxoñul taalu waaye bi leen accompagner ñëw ba booy yi ñëw dafa duggaat ci ñax mi mm-hmm. bi mu duggaatee ci ñax mi noonu la jaaree dem mm-hmm. léegi nag ki monte vidéo bi ak son bi mu ci def mm-hmm. dafa changé bu am itamit nee na da ko jiiñ Barthélémy Dias dem dem indi ji photo Barthélémy Dias bu mu solee mbaxana ak ni muy def loxo mi daal di indi geste yépp ca vidéo ba ñu koy seetaan dinañ ko gis daal ni Barth la waaw léegi ndax lii Barth euh, war naa gis vidéo bi circulé 24 heures te génnul wax ci parce que lu doy waar la wala da nga jàpp ne suñu enquêteurs yi na xeeñ gu toll nañ ko bàyyi ak ñoom ak it noo gisee kilifa li wax. waaw parti de wërta wax ci lii. du ci wax. waaw. ndax man vidéo bi bu mu amee ba léegi dégguma ñu ni Abbas Fall dégguma ñu jiiñ ko kenn. Mhm. dañ ay ay wuyu ñoo ñëw taal ko. jiiñuñu ko kenn. Mhm. ko kenn ki nga xamante ni moom moom lañ taal taalifam moo war na jiiñee mhm. daal ni ñii ko taal waaye comme que ñoom defu ko dafa am ñu ñëw taal ko yoon dana def liggéeyam kon ñu it buñ ko jiiñ kenn. waaw non montel ko vidéo la. waaw ñooñu laa ñu ko jiiñ ñooñu ko monté noonu. Hmm. ñoom dañ ko ko bëgg a jiiñ te moom jiiñu leen ko loolu tooñ la. ok non tooñ la. képp koo xamante ni jël nga ab benn waay ngaan waaju ñuul ji parti li ma jaas la ndax gis naa mu sol mbaxana ak def na nii xool leen fii tooñkat la te tooñ baaxul. man gis naa benn vidéo boo xamante ni Bougane dafay sol di daw naan il a affaire yooyu. ma xool ko su xam ne montage la. yooyu ñuy def bii mënoon naa gën a leer sax mënoon nañ ko monté noo xamante ni par jëmmi par jëmmi jaas lay doon. mu leer nañ te du moom. ah kon lii. ñu ko jàpp montage non waa ji kii da du xamuma ko mu doon man jiiñu ma ko kenn. benn waay la boo xam ne ànd naa ak ñoom ñooña bari nañ. Euh, police jot na ci vidéo bi ministre de l'intérieur wax na ministre de la justice wax na ñu ngi saytu vidéo bi ñoom li si war danañ ko def danañ wax lii naka la demee ñu xam ko donte campagne na ndax ndax lii yàgg na fee def waa Pastef fii taal nañ fi seen sees non ñëw nañ fa séquencé seen sees waa APR daa ne waa Pastef a ko yàq ñoo yàqal seen bopp ba pare génnewaat matériel bi daa ah. nangam ñu ñëwaat 2019 la woon sax waaw hmm. yaakaar naa ni am na leneen lu ñu yàqaatoon ñaan waa piir la xuma dañoo tooñ seen kii ñu kiyaat ko lii dafay yàgg am Cheikh Bara mi otom na voilà Cheikh Bara am otom tàkk na ñaan moo ko taal léegi réew mi nag fii ak mu ngi toll foofu du baax hmm. il faut ñu jóg euh, boo dee xool jamono yi jamono yi kii waa parti socialiste euh, fii nu mu ti Tëngéej taaloon nañ fa ak kër ñu ne dañ faa taal tuuti après ñoom ñu ñëw taal bu baax waa par social si kii ba loolu dafay yàgg am léegi nag li nga xamante ni mooy tax loolu jóge fi mooy lépp loo xamante ni am na yoon gaaw def si liggéeyam indi ñu résultat yi. mooy tax Sénégal yi duñ ci mën a def moo tax Sénégal yi duñ si mën a def loolu ndax nit ki exemple nga am sa yëf mu tàkk nga am si lu la met trop ñun la yaa ko taal. Mm-hmm. te du mujj fenn kii Cheikh Bara Ndiaye ba léegi leerut te daa war na leer Cheikh Bara Ndiaye daa war a fob dossier yi mu dugalaat ko si yoon. da ko war a dugalaat mu leer ñu xam kan moo defoon loolu. Mm-hmm. mais li fiyeek mbir yi ngi ñëw nit ñi taal nañ sama yëf ñu ne ko yaa ko taal mu bàyyi mu sedd léegi nag loolu day continuer léeg-léeg ñu kar ab kartes dóor dóor ñu ne ñoom ñoo kar seen bopp dóor seen bopp waa ah. waaw ñoo ko def pour diaboliser nangam nag réew mi bu tollee foofu rek duutu neex a lijjanti da nga fa gis koo xamante ni wóor na yàlla da nga gis nit nit di ko indi fitna ñu ne ñoo ànd danañ nga romb fi ñaari wuyu ñuy ñuy agressé kenn nga ne ñoo ànd. boo demee dañ mi moo moo moo jëm foo xamante ni duñ ko nangu. d'accord na si ministre de l'intérieur taxaw. ministre de la justice taxaw police générale taxaw si ak. centre moom nee euh, moom ba jant bi fay. Hmm? non day politique. <coughs> ah politicien waaw. politicien la day politique bu ko neexee politique. est la. politique la kay waxi politique la. d'accord ñu nekk si campagne bu ko neexee mu jiñ ko ko. d'accord. Hmm?